jërë ngeen jëf mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen ziare tey nag ñu ngi fii ci kër sëriñ basiiru Ka mu Serigne saaliw mu Cheikh Béthio mu Serigne Saliou mu Serigne Saliou Thioune boroom tuuba maddina ci njurul noonu la kër gi di wuyoo tey nag bu nu fi ñëwee dafa am lu ñu fi indi ñi ngeen di gis euh, mbokk yi ngeen xam leen miin leen torop mu mel ni ku wulli ak kécop ñu toog seen kóllëre ak sëriñ bi ak taraanga yu nu séq ak moom moo tax tey ñu ñëw fii waaye nettali nag ci làmmiñu boroom la dàqe bala ñuy continuer rek dañuy jox wulli mu wax mbokk internet yi lan moo tax ñu ñëw fii tey ak lan mooy sabab bi wulli nuyu nan la asalaamaaleykum maa leen di nuyu yéen ñépp di sant yàlla di santaat yàlla di santaat yàlla suñu boroom di sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul di sant Sëriñ Saalum Mbakke sama turandoo di sant sëñ Modou xabaat Mbakke sama sëriñ di sant sama ñaari waajur di sant nag eh, ba ba Basiru Ka borom Touba Medinatul njulul immobilier di sant nag këccëb nii parce que boo sant boo santul nit doo sant yàlla këccëb maa ngi koy sant lii lépp ginnaaw yàlla moom la moo tax ma xamante ak Basiru ka mu baax mii daf ma woo bàkk leen ni ma wulli suba na nga ñëw ma boole ak Basiru kam mu may la kër pour man damay tooñ parce que billaay wallaay ba mu jógee États-Unis ba tey ñu ngi doog a toog mus ñu wax sax téléphone mais dafa dama surprise bu garaaw la dafa garaaw ci man surprise bi mosuma am surprise bu ma ni demee xam nga moom dafa ma yàpp mu ne ma suba na ñëw ma boole ak Basirou Ka mu may la terrain ne ko kitab yow bay sa caan yi xam ko yàpp mu ku ko mu waat ma incité ne ma wuli caaxaanuma billaay walaay taala waatal ma ci sëñ Touba après ci laa ko gëm affaire bi rëy ma ma ne vraiment lii duma dikk mukk ànd ak moom rek di jël si lii il faut ma woo leen pour Sénégal yi xam ne aussi ku def lu baax dañ ko war a fesal daf ma wax daf ma waxoon ne ma buy ànd ak kenn ma ne ko non këccëb boo may may boo may booleeg Basirou Kam mu may may terrain ma ànd ma ak yow képp duma dikk. gor day nekk gor ma ne ko damay àndal site yi yëpp muy Lutte TV muy wasaare TV ak Bourguewel TV ak Dental TV mhm. ma ne ñëpp laay woo nu seedeel ma lii parce que nit ku baax la mën ma wulli jaru ko dama koo def te yàlla tax parce que xam naa ne amoo kër te nga ko te sama nawle nga lii dafa rëy ci maanaam ku baax la barke si Bamba Mbakke ku baax la ku ko xamul nag mën nga koo réer mbir mais nit kenn gën ko xol te man nit su may jàpp yoral milliard bu sa xol rafetul bëgguma sax xam saa yi ma xëyee damay ñaan yàlla na ma na ma yàlla di booleeg nit ñu baax barke Seydina Mohamed boo yoral ay milliard te sa xol rafetul yàlla bu ma la xam këccëb ku baax nga këccëb ku baax nga wax dëggu si yàlla fëggan sax dina am relation bu garaaw mais sama xarit la nag vraiment am nañu réaction mais ba mu ñëwee ba tey deux mois ci ren mu ngi jóg a toog ma toog may mbër comme moom man xam naa ne daf ma yéene tabaski fii laa toog karambooy bi woo ma moo ma jëkka woo ma léegi karaa la xam moom soo man day damay tooñ moo ma jëkka tabaski ma mbër léegi karaa la fekk boobu mu ngi Amérique daa une heure de temps Kara Mbodj woo ne ma booy naa la naar Mbodj sama mag naa woo ma ne ma Kara ma ne cent mille bi ne suba la tabaski ma waxoon dama koy wax mu ne ma boo ko waxee ma ba loolu kenn yëg ko kenn mësu koo yëg te moom def na ma mel mu ne Kara Mbodj joxawule xar Kara mësuma ko woo di ko wax dara moom moo ko woo ne ko jàppaleel wuli te loolu kenn yëg ko woon lii moo tax sax te ma wax ko nit ku baax a ngi barke Seydina Muhammad nit ku baax a ngi bés ni ki tey jàpp naa ko sama bakkan ñoo maak moom lépp léegi dañuy jël suñu bakkan jox ko Basiru Ka say bakkan nag bëri ngay bakkan yaay Abdourahmane Dura bakkan ci moom Pape Diouf bakkan ci moom Mata Diop suba tel bakkan ci moom Kara bakkan ci moom Aziz Ndiaye bakkan ci Aziz Balla Gaye bakkan ci Aziz ba Balla mais bakkan yooyu yépp kon léegi say bakkan jeex na jëlal sa bakkanu jabar ju ko ko man nag sama bakkan ba Basirou Ka Sénégal gépp uh-huh. nañu xam ne jox naa ko sama bakkan bii Bassirou ah, ah. jox naa sama bakkan Sénégal yépp nañ jox seen bakkan parce que ni ko waaw nañ ñëpp jox seen bakkan ci Bassirou Kam yi jël engagement engagement laa jël ci nañ ko jox suñu bakkan yii que nit ku baax la daa war a bari ay bakkan nit ku baax day bari bakkan Bassirou Ka aussi yow maa ma lay sant bu la neexoon maa ngi ko doo gis nii bu ko neexoon bi ko ki jëpp wooyee. Mhm. na ko mayal wu wuli. Mhm. mu ne ko ma dama xam wuli. mais da ko ni wal kon baas sama bakkan ak bakkanu Ketchup ak bakkanu Lamine mii bu la TV ak bakkanu Mbay Joob ak bakkanu Jili ak bakkan yépp booy naa jox la ko say bakkana yee yaa koy noyee ñun man moom sama bakkanu jabar laay noyee léegi <laughs> amatuma bakkan bas sama ba bagan jox naa la ku laal bas laal ma ku baax la te lii muy def mm-hmm. def na ko ay kilifa yu bari kii nag damay lancer appel mbay la bi yaay appel Macky Sall parce que kii mu ngi def lu baax ku bëgg a dugg ci gaal mm-hmm. ñu may la kër da toog ma ne ku bëgg a dugg ci gaal yi Bassirou Ka ni may def terrain doo toog toog fii daa fees direct ay xele ñu fi liggéey am na ñetti site internet Dental TV ak TMM TV ak télévision bu ne Tivaouane Peul ay son yu bari di ci liggéey mos nga naa dégg ku dégg Tivaouane Peul ñu ne mu ci gaal yi moom moo tax ñu ngi liggéey mu na ko réew mi jàppale. Mm-hmm. Macky Sall mm-hmm. man wulli maa lay lancé appel solennellement mm-hmm. jàppaleel ma ko. Antoine joom yow mi nga xam ne yaay ministre de l'intérieur sama xarit Antoine jàppale ma Bassirou Kami dinaa fexe nga xam Antoine Diome dinaa la indi Antoine fexe nga xam Antoine Diome le ministre de l'intérieur parce que kii kilifa yi dañu ko war a jàppale al kër yu mu kër yi muy maye ku ko doon jëndee da def huit huit millions wala dix millions Lamine mii may na ko. ba dem la mu war dama est du ma dugg ci gaal yi. Lamine mii. daa naroon dem ci gaal yi na béy caméra bi dem toog na kër huit millions wala dix millions. ku la ko may départ la. ku dem dugg ci gaal kër nga bëgg di pour traiter yaay. Ah. kuy dem ci gaal yi kaay nag ñëpp ñuy dem ci gaal yi barke sëñ Bamba ñàkkunu nu jom ku ñàkk jom te du géej di dem ci gaal ku ñàkk jom doo dem ci géej gi mukk képp kuy dem ci gaal yi dangaa bëgg a teral sa waajur parce que toog nga sa kër situation bi miti ngay xool bëgg a jox sa yaay dépense mënoo ko bëgg a takk soxna mënoo ko location di leen sonal ñi ñu gën a seen waajur yi ñu réew risque du ci gaal yi kii état bi dañ koo war a jàppale. ndax mu ngi jàppale xale yi. waaw waaw état bi. Mm-hmm. non état bi. Macky Sall. Mm-hmm. Macky Sall. Mm-hmm. maa lay lancer appel solennellement. nga jàppale xale réew mi. parce que vraiment xele mooy réew. Macky Sall Abdoulaye nga fekkoon muy mag nga ne xale ñëpp jox la réew mi topp xale yàlla fol. kon milliards yu def ci feneen. billaay wala nañ ko def ci ci xale yi. bas mi ne bu ñu ko jàppale woon barke Mouhamad mu jàppale ñu bari. Basiirou Ka yaa baax yaa gore Basiirou Ka yal na la jàppale sama bakkan yaa ko moom nga joxaat ma ko ma ci noy boo neexee nga tey ko sama bakkanu jabar di ko noyee lépp ci yow la des yaa baax yaa gore